ginnaaw bi ñu leen nuyoo di leen dalalaat ak jàmm seen chaîne bii di leader tv di wax ni bu leen fàtte abonné tey nekk fukki benn si weeru novembre si atum ñu ñëw si revue de presse revue de presse nag dañ ciy njëkkee la turbine la turbine nag moom ma nga fasal sa xat njëkkee el tactico ñu gën ko xam moom Aliou Cissé moo taxawanteeg maître Augustin si mii nag journal bi mi ngi ñuy xamal gannaaw bi nga xamee ni contrat am jeex na ak fédération de football prolongé nañ ko ba 2024 bii ñu jëm ba tey journal bi ñoo ngi fay fekk gannaaw bi nga xamee ni moom journal bi mi ngi ñuy xamal ni kii di Aliou Cissé ñu gën ko xamee si El Tactico boobule contrat motivé nañ ko gannaaw bi nga xamee ni salaire bi nga xam ni moom la daan jot boobule salaire yokku nañ ko prime contrat boobee tamit journal bi mu ngi ñuy xamal ni boobule prime yokku nañ ko moom Aliou Cissé mii nag objectif bi nga xam ni waa fédération sénégalaise de football loolu nañ ko laaj boobee nga xam ni foofee nañu sa Qatar si jour yii di ñëw boobule coupe du tey tey journal bi ñoo ngi fay fekk gannaaw bi nga xamee ni coupe de afrique boobee di am si 2023 bii moom Aliou Cissé nag boobule coupe de afrique coupe bi nañ ko laaj comme niñ ko ko laaje woon si mu jëlal ñu ko ba tey journal bi ñoo ngi fay fekk ñetti jour yooyee nga xam ni journal bi mi ngi ñuy xamal ni bii mooy seen dernière coupe du monde ñu gën ko xamee si turu Cristiano Ronaldo ak kookee di Karim Benzema ak Lionel Messi ginnaaw la turbine dañuy si Aliou Cissé moom Aliou Cissé moomee journal bi mi ngi ñuy xamal gannaaw bi nga xamee ni contrat am jeex na ak fédération sénégalaise de football boobale contrat nag moom Aliou Cissé mi waxtaan na ak fédération sénégalaise de football ba prolongé nañu boobule contrat ba tey journal bi ngi ñuy détaillel boobule contrat ñu xamal ni gannaaw bi nga xam ni moom Aliou Cissé mi signé nañu boobule moo tegu ci boobule contrat mi ngi toll si cent vingt millions francs CFA ba tey journal bi mi ngi ñuy xamal salaire trimestre nga xam toll si trente millions francs CFA ba tey journal bi mi boobee nga xam ni moom Aliou Cissé mois dinañu ko verser mi ngi toll si ñaar fukki millions francs CFA ba tey journal bi ñoo ngi fay fekk gannaaw bi nga xamee ni contrat bi ma nga jëm 2024 si la boobule contrat di jeex ba tey journal bi ñoo ngi fay fekk objectif yooyee nga xam ni waa fédération sénégalaise de football ak El Tactico ñu gën ko xam si Aliou Cissé yooyu la objectif moom nañu d' coupe du monde boobee nga xam ne sala jëm sa Qatar si fan yii ñëw équipe bi ñoo ngi laaj mu yóbbu équipe bi quart de finale ba tey journal bi ñoo ngi fay fekk gannaaw bi nga xamee ni coupe d'Afrique boobee nga xam ne mooy am si 2023 bi nga fësal sa xat yu njëkkee El Tactico ñu gën ko xam si Aliou Cissé ak coach sa Pays-Bas boobee nga xam ne tey ajjuma ji na leen di xaar pour ñu génn seen liste joueurs yooyee nga xam ni ñoo leen di jonganteel sa coupe du monde boobee ñu jëm foofee sa Qatar ba tey journal bi ñoo ngi fay fekk mi ngi ñuy xamal ni l'international sénégalais bii di Sadio Mané ñoo ngi kiy am yaakaar ne dina bokk si list tey bii dina bokk si suñu list gaynde yi moom Sadio Mané mii nag journal bi mi ngi ñuy xamal ni daanaka moo Fils de Paye moomee ñoo bokk ñoom ñaar même situation même Fils de Paye moomee waa pays yi ñu si bëri ñoo ngi am yaakaar ni moom Fils de Paye dina bokk si liste Pays-Bas boobee ba tey journal bi ñoo ngi fay fekk mu ngi ñuy xamal ni gannaaw bi nga xamee ni El Tactico ñu gën ko xam ci Aliou contrat am jeex na ak fédération sénégalaise de football boobulee contrat nag journal bi mi ngi ñuy xamal ni yokk nañ ko yokku nañ ko nag mais Aliou Cissé moomee dina jot ay bonus moom journal bi loolu la ñu xamal ba tey bi ñoo ngi fay fekk équipe yooyee nga xam ne ñoom génn nañu seen liste joueurs yooyee nga xam ne ñoo leen di jonganteel équipe bu si mel na Angleterre listam génn na Portugal listam génn na Allemagne listam génn na Belgique listam génn na moo tax journal bi mi nga fësal Harry Kane noonee ak Cristiano Ronaldo ak kookee di Lukaku ba biir réew mi dañuy jubali bitim réew ak journal bi ñuy wax Marca moom journal bi mi nga fësal sa xatu njëkkay Real Madrid moom journal bi mi ngi ñuy xamal ni club bu mag bii di Real Madrid moom Real Madrid googee nag gannaaw bi nga xamee ni FC Barcelone daf ko rewe woon juróomi poñ moom Real Madrid gannaaw ndam li nga xam ni amal na ko démb ñaari bal si dara àndandoo Vinicius Junior yi nag journal bi mi ngi ñuy xamal ni jege na FC club bii di FC Barcelone ñaari poñ la ko rawee